Miles O'Jamdong, Sambe Pesi, Sherifou et Job Sabrates, Jila, Sabel et Pamadjan. DJ Pimps de Paris et DJ Dollar. Entrée, fausse 15 000, gradin assis 30 000, VIP prestige Disponible sur Jumia, en livraison chez Rapidos, chez Saveur d'Asie, Comptoir et e et sur festidakar.com. Sponsor leader orange. voilà final bu mag baa ngi noonu Papa Gueye Mouma ak Pakala bu Mbour Papa Gueye moo nge moo nge mu lu vert noonu Pakala moo nge moo nge mu lu ñuul li ndeysaan gis ngeen leen gone yaa Papa Gueye muuma ak Pakala ay waay lii rafet na lii rafet na arbitre baa ngay consulter ay juge am sifflé na génn Papa Gueye muuma ak Pakala final baa ngoog finalu Fata production wala Fata production ci Joal Fadiouth Pakala nga xam ne miin na fi fii fiefam la Papa Gueye muuma nga xam ne miin na ko jël na ñangal barki Demba Ndiaye waay Pakala jël na ko buddi na ko door na ko ci suuf eh waay aka gaaw aka gaaw Pakala Pakala daan na daan na Papa Gueye muuma mu